internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare nuyu nañu leen bu baax ziar leen tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci géejawaay si tiis bu métti bi nga xam ne moo daal di dal ci seen doom bi ñuy wax Bokar njaay am euh, fanweeri at ak benn moo doon liggéey rek ci benn kër daal di jóge troisième étage daal di daanu loolu moo tax ñun waa wasaare ñu doxantu ba si fii nga xamante ne ni euh, foofu la daal di ñàkkee bakkanam dañuy dugg ci biir kër gi rek ànd ak ki nga xamante ne ni moo di rakkam bu ko defee dinañu expliquer situation yi naka la fi demee xalil bu baaxee ma daal dugg ci biir kër kër gi eh, gisee ki nga xamante ni moo di rakk Bokar Ndiaye moomu mu daal di ñuy wax mbir yi naka la demee waaye tamit joxe ay témoignage ci magam jooju eh, bu ñu fi jegee nag daal di dem ci li nga xamante ne ci kër gi nga xam ne yaayam fa la nekk ak ay xaritam ñoom tamit ñu joxe ay témoignage ci seen doom ji nga xam ne moom moo fi daal di bàyyeekoo. kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi dolli ziar bu wér a wér. naka la Mouhamed Ndiaye. Mouhamed lan nga bokk ak Bokar mi fi bàyyeekoo. waaw Bokar de ñoo bokk benn baay. Mhm. gannaaw ba ñu la ko jaalee ñu ñëw fi nga xamante ne nii foofu la uh, daal di ñàkkee ba kanam ndax mën nga ñëwal ci mbir yi naka la demee exactement. waaw ñun dañuy dolliwaat sant yàlla ginnaaw ba ñu ko jaalee di la delluwaat jaal bi te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk bokkar bokkar ku ko xam xam ni nit ku baax la ku yaru la ku tey la ku bëgg ay njabootam la waaw waaye nag lii am moom am na ba pare waaye dañuy gën a dolli sant yàlla te xam ni suñu boroom lépp lu def rek. daa doon lu gën ñun ne dañoo toogoon suñu biir kër bi ñu toog ginnaaw bi ñu toogee suñu biir kër ñu toog di añ bi ñu añ noonu si la woowee téléphone ne seen frère bi Bokar njaay ñëw na daanu ñun nag xamuñu woon ba xam daanu bi garaaw na noonu nañ ne ax ah, daanu kii rek bu ñëwee nag fekk ko daal mu doon loo xamante ne mu tiis lool mu metti lool mu doon loo xamante ne moom la ko suñu boroom teg ginnaaw bañ fi ñëwee tamit ñëw nañ fi ñëw goo xamante ne neexuñu delluwaat santaat yàlla bu baax waaw moo ngi jugee moom troisième étage ci kaw la jugee ndax moom li ko gën a rey sax mooy bant la jàppoon ne ci la toog léegi bi mu toogee noonu rek barastiku te tamit kenn ku nekk rek suñ borom fu tuddee sa dee rek lu xaf lu xaf ba ba am ba am na am na ba pare rek dañu gën a dolliwaat rek daal di santaat yàlla bu baax mi nga xamante ne moo ñu ko joxoon te moo jëlaat waaye nag moom nag moom da doon defar ardoise ardoise bi la doon defar waaw mais teg na ardoise bi ba pare léegi muus mbuus rek moo tegoon pour mbuuse ko ne ginnaaw bi mu koy mbuuse noonu ba desee ko si beneen côté bi noonu fa la xaawee ko daal daal yàlla daal di def lu gën waaye nag métti na lool nag nekkul du ñun rek waaye boo Bocar Ndiaye ku ko xam ku ne xam xam ko ku baax la ku yaru la ku bëgg ay nit la moom daraan jël maanaam alalam waaye tout tànk yi daal la gënoon a fréquenté woon tout tout tànk yi waaye nag ñun daal duñ def lu dul sant yàlla te xam nañ suñu borom moo moom moo indi woon jaamam moo jëlaat jaamam di ñaan yàlla suñu borom jéggal ko fa mu jëm gënal ko fu mu jóge ñoom fay fekk ñu ko fay fekk yëpp suñu borom yërëm leen xaarale xaaral leen ak. bañ leen annoncé li nga xamante ni moo di daan bi ndax bi ngeen ñëwee jot ngeen a gis seen frère boobu. waaw gis nañ ko bay wax ak moom waaye boobu fekk na moo ngi toll si sukuraat boobu fekk na moo ngi toll si sukuraat sama caatu yaay bi nga xamante ne moom moo ñu fi jiitu moom ci côté daanaka presque la doon liggéeyee moom moo ñu fi jiitu ba ñëwee dañ koo fekk moom moo ko moo ko jël teg ko ci ay óomam naan ko bokaa bokaa waaye instant boobu mënu woon wax waaye suñu borom def na def lu muy def boobu fekk moo ngi si sukuraat léegi nga xamante ne man moo mag muy Maodo Ndiaye moom moom moo nekk comme que loolu la demee moom dañuy jël moom ambulance mu ànd ak ambulance waaye xam nga ku ñëw ambulance bi ñëw fàtte fi ay matériel nga war a xam ni cas boobu critique na. fàtte ay am fii la fàtte ay matériel am ndax bi mu gisee cas bi moom it ndeysaan ñoom it ñoo tàqalikoo seen sago ñu fàtte seen matériel ñu leen kaay ñi kii lañ leen woowee si lañ jéem a tegee si kii bi dem ko yóbbu ginnaaw bi ñu ko yóbbee nag si si hôpital bi fa la ñàkkee ba xanam waaw kon jot na dem ba ci hôpital. dem na jot na dem ba ci hôpital bi ba koy ambulance bi di wàccee si hôpital bi foofu daal la suñu borom defee lu gën. yéen ñi nga xamante ne ay frère ngeen bi ngeen ñëwee ba tiim ko maanaam ci yan anam ngeen ko fekk. waaw métti na lool de métti na lool métti na lool bi ñëwee bi ñu ko tiimee métti na lool waaw mais ah moom daal bu mujjee ñëw daal yaayam la waxal. kaf foo ak ñun ree ak ñun waaw doon mbégte ñëpp daal ñu ñu ñu ñu tàqale ko ci jàmm ak salaam daal mais jotul dégg benn kàddu waaw moom daal amoon na benn xaritam bu dëkkoon suñu ginnaaw noonu ku ñuy wax cawlaay moom daal la waxal naan na ko fonkal sa yaay ndax lépp lu ñu munte am rek suñu yaay moo ñu ko moo ñu ko am loo kon dañoo war a sant suñu yaay kàddu daal boobu daal laa mujjee dégg mu koy wax. Hmm. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. waaw ñun daal ñoo leen koy delloowaat jaal bi ndax bookar moom suñu bookar la ñun ñëpp ñoo ko bokk daal waaw di dolliwaat daal di santaat yàlla rek alhamdulilah. yaay booy maa ngi lay nuyu. waaw waaw. bi naka la. nga nekk yaay ci ok nga nekk yaay ci xale bu góor bi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo ñu bëggoon rek nga jox ñu ay kàddu yu seede ci moom. Mm, xale bu baax la sa yoru liggéeyam rek la fonk bëggul dara du liggéey. daan dooleem rek ba xëy de wallaahi rek laa ko xame bëgg yaayam bëgg ay rakkam wallaahi ban jour la xew moom talaata ci deux heures waaw muy dem jot ngeen a waxtaan yéen ñaar ah, ci ginnaaw ëllëg sa keroog ci ginnaaw ëllëg sa altine bi ci ci ay deux heures la fi jaar euh, may wax ak moom mu ne maa ngi dem te ñëw boobu laa ko ci gis waaw. rek ngeen yëgee xibaar bu tiis bi nga xam ne moo daal di dal ci seen kaw. Hmm, sant yàlla rek xam ne loolu moom du fi jóge ci àdduna la bokk waaw. Hmm. ndax bi mbir amee jot nga dem ci bërëb bi nga xamante nii foofu la xewee. Hmm, dem naa ko foofu ba gis ko. mu xam ne li mbirum yàlla la. daan doole rek dafay dem waaw. nga gisee sa doom ci situation yi nga xamante ni moom la nekkoon en tant que yaay ci koo xam ne moo la doon jàppale sa yëg-yëg foofu lan la. sant yàlla rek sant yàlla bu baax ma xam ne yàlla moo ma ko mayoon yàlla moo ko jëlaat mhm. mooy sama taaw waaw. Mhm. sant yàlla rek bëgg ay magam bëgg ay rakkam rek bëgg yaayam bëgg ay mbokkam waaw. bëgg ma rek bëgg ay rakkam bëgg ay mbokkam bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn képp ku mu gis rekk amante naag moom jàmm ak salaam tëkk yàlla laa ko fa hmm? atam dama dama jàngul na xaw ma atam <laughs> waa am na doom am na benn doom waa moom fan la ñàkkee bakkanam fi mu daanu wala ci hôpital bi nee daal ci biir ki bi nga ko yóbbu ci kii bi ambulance bi ci la kii ci génn àdduna waaw waaw da doon liggéey waaw hmm? ah, da doon liggéey nii rek ay ay batiment nii moom daal maçon la woon waaw tey lan moo la gën a marqué ci sa doom jooju xam ne tey moom moo fi daal di bàyyeekoo taxawaayam bu la marqué ci moom ah sant yàlla rek sant yàlla rek ma xam ne man benum yàlla la waaw liggéey rek liggéey rek ba xëy dee waaw loolu rek yàlla rek sant yàlla rek sama doom mama maa ngi lay nuyu ah, maa ngi lay fay naka la man ci am laa tudd Biége lan nga bokk ak Bukaam bi bàyyee ko waaw ah, ngi am ñoo bokk ndey ak bàyyi ba ñu la jaalee sa doom jooju yan kàddu seede rek nga ñu mën a jox ci moom kàddu yi seede yi mooy seede yi àddina joxe ci moom ndax nit ki mënuloo seede li nga xam ne àddina yëpp seede ko li àddina yëpp seede ci moom rek lañuy ñuy ci moom ndax moom la ñu xam ci moom ndaw la nag waane ndaw li nga xam ni la tabaar fakkal la macha allah ku bëgg liggéey daan doole te la mu bëggoon ci la dem muy liggéey jaamu yàlla bëgg waajuram nag ba mu jeex takk bëgg ay rakkam bëgg ay magam bëgg àddina yépp defe naa ni bala ngeen fee yegg si seeni nopp fees na kon nag ñu ni loolu rek lañu ñu mën wax nit ki nag moom tabaar fakàlla macha allah ah xabaar bi moom tiis na wax dëgg yàlla tabaar fakàlla macha allah ndax nit ki moom boo sañoon sa doom nga dundam moom lu yàgg waaye nag comme que yàlla moo la ko mayoon te yàlla laa ko jël mënoo xëcc moom waaye lu metti la waaye dañuy ñaan yàlla rek fi mu ñu féete woon yàlla nañ fa yàlla féete féete fa mboolem jullit taxawaayam mooy teral waajuram teral ay rakkam teral ay mbokkam ndax fii mooy kër baayam te baayam moom it génn na àddina kooku xam nga ni taxawaayam ci àddina pour lu bégal ay ay waajuram rek ay ay waa ne yàlla nag kenn mënta xëccoog moom xëy na waa jikko yi de jikko yi jullit la jikko yi daan doole moom lañuy ñu ci moom ndax bu defeen la leen it bala ngeen fee yegg si ngeen dégg ko waa defe naa li ngeen dégg ci mbedd mi moom ngeen dégg fii kon yooyu qualité rek lañu xam ci moom suñu doom la nag waaye moom rek lañu xam ci moom tabaar fakàl la waaw ah, kilifa gi maa ngi lay nuyu. ah ki daal li ñu xam ci moom. tur bi naka la ba pare. Hmm? nan la. man Momadou Thiam laa tudd. Momadou Thiam lan nga ci eh, bu kaami fi bàyyee ki fi bàyyee ko maag bokk ndeeg bàyyi waaw. kon gannaaw ba ñu la ko jaalee yan kàddu yu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. li ma leen mën a jox daal xam naa ne moom liggéeykat la woon xeebul woon dara lu mu gis liggéey ko waaw. ci lu doon tërale ndeyam baayam yëpp waaw di ci tëral ay mbokkam waaw loolu daal xam naa ko ci moom waaw. mbir mi jot nga dem foofu fi béréb bi nga xamante ni foofu la xewee. non dewuma fa fa mu xewee dewuma fa de waaw biñ ma ne daal daanu na dee na fii laa ñëw waaw ba fa jógee guma fi ba léegi waaw enquête yeeg yooyu yëpp dew ma. samay jarbaat ñoo demoon lijjanti yooyu yëpp man daal sangu suul laa ci am waaw. taxawaayam ci biir kër gi wala yéen ñi nga xamante ni yéen ay famille wam naka la demee woon. ah ay famille nag ñooñ nag moom xamaluma leen dara waaw dafa xew xamum xamu xamu fa dara loolu la. jikko wala yan qualité moo la gën a marqué ci sa jarbaat bi nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo tey. yan qualité. qualité qualité bu baax rek loolu rek la am liggéey xëy dem liggéey ci ñëw toog ci kër gi jeex na loolu rek laa ci xam waaw. d'accord jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. jërëjëf waa kay yal na leen yàlla fay jërë ngeen jëf. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. naka la. man maman Cheikh lañ ma gën a xàmmee waaye Mamadou laa tudd. Mamadou lan nga ci bokkaam yi fi bàyyeekoo. waaw ah, ba bokkaam moom ni mu fi bàyyeekoo moom bàyyeekoo ko na fi góor yàlla. parce que bàyyee ko na ci jëmm liggéey waaw ci ni ko sunu borom waxee mu ne jullit bu nekk da war a daan sa doole bokaa moom xam rek la doon dundee ba yàlla jël ko ci tey waaw loolu moom naa ko ci moom waaw bokaa suma rakk la papam moo namp jox suma bàyyi waaw suma doomi bàyyi la kon naa ba ñu la ko jaalee ba pare kàddu seede yi nga xam ne mën nga ñu ko jox ci moom waaw seede yi ma mën a seede ci bokaa nekkoon na xale boo xamante ne bii man sama kanam la juddoo waaye moom soowu yaayam la nàmp parce que yaayam dafa baax te Boga moom ñëpp ci mbaax lañ ko xam ak daan dooleem waaw ak kaf ak ree waaw loolu moom xam nañ ko ci moom jàmbaar moo fi jógee ku ñeme coono ku yërëmoon yaayam koo xam ne kii soo gisee mu doon daw lépp lu mu am yaayam ak ay rakam yu jigéen waaw loolu moom man xam naa ko ci moom waaw dem naa fa ba xool ko waaw dem naa fa ba gis ko waaw muy lu metti nag waaw. fi nga xamante ni foofu la mbir mi amee ba daal di koy gis troisième étage la daanoo yan anam rek nga ko fekkee moom. waaw moom jamono boobu noonu muy muy muy daanu man loolu fekkuma fa mais bi mbir yi weesoo man dem naa xool barab ba ba gis maanaam fi mu jógee ak li waral moom mu daanoo loolu moom gis constaté naa ko quoi waaw fi mu yëg baaxul mu yëg baaxul mu yëg baaxul waaw. mu daanoo ndax am na ay nit ñu fa dëkk. waaw man ba mu fa demee daal fekk naa fa benn soxna soxna soos nag moom xamal na ma ne moom mbir yi si kanamam la amee parce que mu ngi woon ci waañ bi te ci booru buntu waañ bi fa la daanu waaw mu metti loolu tamit waaw loolu daal jot naa ko fa am waaye kër gi moom xaw ma fekkuma fa ay góor jigéen rek laa fa fekk ay jigéen rek laa fa fekk. ay jigéen laaw. fan la gaañoo fi mu daanu woon la gaañoo wala ci hôpital bi ñu ko yóbbu. waaw de toute façon man loolu noonu lu ma ci def ay témoignage mais xam naa ne daal après daal biñ ma raconté fi mu jógee man xam naa ne foofu ku fa jógee rek waaw dina métti daal ci sa jëmm daal amaana na yi ñoo ko fa jël si waaw xam naa ne nag boobu foofu la dogee foofu daal laa yaakaar na fa la dogee doo ko dem hôpital. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax. waaw yal na yàlla nangu jaal bi na ko sunu borom def barke salaatul moom mu fi jógee yàlla xare ko àjjana ci barke salaatul fatiha gërëm nañ leen sant nañ leen jaajëf. kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. bi naka la. tur bi Baba Ndiaye. Baba Ndiaye lan nga bokk ci bookar. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw di sant yàlla di ànd ak gëm-gëm nag. waaw ndax bokkaamam ku ko xam. xam ne si liggéey lañ ko xamee. liggéeyee tax sax mu génn këram. te li mu am indil yaayam. lu mu am ak lu mu ñàkk nit du ko xam moo nekk nit koo xam ne lu mu yor si poosam boo ñëwee wax mu tijji ko jox jëndul yére bu rafet ndax jaamu yàlla yi yaay dégg soxlawul dara foo ko fekk tëneem lay sol su wàccee sangu toog na këram am na xale yoo xamante ni tey sax bu ñu yëgee ne bokaa doddu na dinañ am leen met ndax moo leen yar lépp moom moo nekk ci ñu képp koo wax si fii géejawaay ba géejawaay daj ñu ne kooku liggéey képp lañ ko xamee moo tax démb man mbooloom bi man magam sax ndax man ndax bu ma ko faatoo ndax dinaa ko am man te man ku am jom laa sam bopp te ku nangoo liggéey laa mais damay dama jàpp ne Boga wàccul yoonam daal ay magam daal la jël ndax si luñ ko yar rek maanu na kenn mësuñoo kalaameeg moom foo ko fekk liggéey ñii ñëpp ay moom moom lañ te sama xol sedd na te am naa yaakaar ni ni Boga mi ngi àjjana fiir daw si ndax démb si almeer yi bu ma duggee man mii di magam boo ko moom benn baay aw ma dara loo xam ne dama si tiit wala dama siy ragal ndax gëm naa ne li mu lebal nit ñi rek la ko nit ñi fay bak Serigne Touba Mbacke te am naa yaakaar bu baax mi ngi si daw firdawsi. mën nañu xam génn ak àdduna avocat moom lan moo ko sooke. waa man moom néew ma fi woon nag tubaab jalaaw laa jógee ñu wax ma ko mu soogee ma torop yaa ngi dégg mu soogee ma torop mais ba ma ñëwee ba xool kër gi troisième étage la jógee. mais man ba tey gisuma ko mais sama mag bi ma nekkal ba mu jógee Touadja ma dafa dawal motom dem ba dal jaamu gis ko man loolu sax ma yóbbu si kër gi mu ne ma baaba ma ne ko naam mu ne ma faaw ma dem xool fi xale bi jógee daanu ba si laa amee ñu ànd ñu dem ba ma ko xoolee ma ne ko ouvrier nga may ouvrier maçon mag nga maçon mag la lii du deuxième ma ne ko xullil fu mu jógee mu naa ma ne ko man na trois mètres te leen loo si dolli reeda soose bi day ñëw mu nekk trois mètres net mu nekk kon troisième étage la jógee dal si óol ci óol si óolu digg kër waaw parce que affaire yi moom doy na waar ndax mënuñu koo expliquer doy na. mën nañu xam lan moo ko daaneel foofu daf doon liggéey wala. parce que même ñi nekkoon moom si li ñu wax si gàttal nee na ba mbir mi di am sax ki mu nekkaloon da ko jox na ko damay jëndi ndékki kon nga xam ne ni li war a am nit mënu si dara man lii laa si jot a xam waaw. mooy lan exactement. moo nekk si nekk si digg kër mooy óol waaw moom mooy óol quoi. comme ça boo liggéeyee sa kër day am espace boo xamante ni mooy génn tiim asamaan si loolu nag la doon toiture yàlla dogal nag. li mu daanoo foofu la dëkk. non dëkku fa nag dëkku fa ndax moom ku ko gis ci liggéey nga ko xamee ndax fu mu dem dañ koy jox liggéey rek mu liggéey géejawaay bi fii ñëpp a ko xamee liggéey wax dëgg yàlla géejawaay bi fii ñëpp. moom lañ la doon liggéey. moom bàyyiwul dara. boo ko joxee liggéey moson mu liggéey ba si ngacc foo sax bàyyiwu ko kon nga xam ne kon kooku bàyyiwul dala aj birig lépp lay def du tànkam lu kenn ku ñëw si chantier na ko waa Boka lii laa bëgg mu waxaale yow bu juboo mu dem dóoral la waaw moo tax démb li mu am ci mbooloo man sant naa si yàlla bu baax a baax a baax. moom moom si trente et un daal si lay waaw waaw si lay toll daal man si la moo si gàttal. jot na am jabar wala jotoon na am jabar nag mais am na benn doom bu jigéen mais soxnaam roxeetu woon mais yàlla dafa def mu divorce ak moom. waaw mais nag ñu ngi siy sant yàlla bu baax nag ñu ngi siy sant yàlla nag dinañ ànd ak gëm métti na lool mais da ngay ànd ak gëm jiital suñu borom no wax dëgg yàlla ñëpp wér lañ ko xamee musul déborder te ci yar lañ ko xamee ak teggin bu ñëwee ni muy nekkee ak yow ni muy jógee dérangement du am te bëgg na waxtaan te fu mu toog dafa bëgg nit dafa bëgg nit nee la nit foo mën a jóge muy jigéen ak góor keneen koo woowaat jox ko bi li la lay wax soo soxlaa yow mii taxaw sax boo ñëwee wax ko muy moom mu xañ ko boppam jox la te ñun sëñ Abdou Karim Mbacke bu fàllalu mooy sunu sëriñ nee na nit ki li nga gën a bëgg soo ko yëkkatee jox ko jaamu yàlla fii ak diir nga gëm sa bopp te fas jom te liggéey sunu borom jox lu ëpp loolee bak sëñ yan jikko wala yan qualité rek moo la gën a marqué ci sa rakk ji nga xam ne moom moo fi bàyyeekoo. non man lu ma gën a marqué mooy boo yi mu nekkaloon te miin ko mu xamal leen àdduna mu yar leen ba ñu màgg parce que damay toog di wax ñoom ñu ne ma Baba Ndiaye Boka ba muy daanu Ba war na fekk foofu mat laa mais xam nga seen tolluwaay ndax doyaluñ si mais ñun ñii boo ak moom xam jàmbaaram xam njomam si ñun la gën a metti mais dañuy sant saa asune ndax yàlla moom bu soxlaa rek jaam ñaax wax dëgg yàlla. gi mu daanoo amoon na ñenn ñu fa dëkk. ah man waa am na ñu fa dëkk nag parce que ba ma fa demee am na ñaar ñu ma fa fekk waaw xam nga mais ma demee xool tamit génn ak sama grand frère ñoo fa àndoon. Mhm. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. jaajëf waaw ñu ngi la koy ñu ngi la koy jégalu nag nag ñu ngi jégalu ñëpp nag bu kàddu yi rafete ñu ngi jégalu bu fekkee tamit daa am dëng-dëng ñu ngi jégalu waa Sénégal yëpp. waaw ndax affaire yi métti na loolu mais nañu muñ quoi sant yàlla bu baax. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi lay fay. naka la. man maa ngi tudd papa yaayam. papa yaayam lan nga bokk ak bokkaam fi bàyyee ko. waaw bokkaam maa ngi moom sama pa yaay ak papaam ñoo bokk yaay mais ñooy ànd guddeeg bëccëg ñun ñoo bokk fu ñuy nekk di daje di liggéey chaque jour ñun ñuy toog ñun ñëpp ñoo bokk fenn fu ñuy nekk di liggéey waaw. ginnaaw ba ñu la ko jaalee kàddu seede ko jox ci waaw Bogaane leen rek la ñëpp di seere si moom te loolu laa mën a seere ci moom mooy jàmbaar la liggéeykat la ku bëgg liggéey koo xamante ne bañu dara si liggéey ba ci li soog bi mu am nii sax liggéey moo ko waral ndax bëgg liggéey jour boobu noonu ñun ñoo nekk man moom ak Malick ñoo nekk man may liggéey si bopp koñ bi foofu moom muy liggéey ci biir kii bi koñ bi même lépp si koñ bi la quoi fu ñuy toog même fu ñuy liggéeyee mais sanca lañ ma fekk ne ma Boga daanu na mais man na tamit daanu bi jàppee ma woon daanu yooyu waa mais même sens ni ma expliqué ne Boga daanu na si lañ ma woowaat ne ma Boga décédé na waaw man loolu laa ci am mu metti nag loo xamante ne lu ñu yi waaw ñu koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee di ko ñaanal yàlla na teere ci àjjana yu gën a kawe liggéeykat ñun ñii ñëpp moo ñu def liggéeykat. daanoon lan dafa doon def dafa doon liggéey wala. da doon liggéey adduwaas adduwaas la doon la doon xadd léegi xadd na adduwaas ba pare ñëw di di arrière di lal mbuus bi surux waaw jugee troisième daanu yàlla def li gën waaye mais dañ koy ñaanal yàlla na fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee di ko ñaanal àjjana yu gën a kawe si àjjana yi ndax liggéeykat ñu ñëpp moo def ñu liggéey billaay walaay tàllaay ñun ñëpp buñ ñëwoon dañuy xëy toog moom moo nekkoon kat bi boo ko bàyyiwul foos bàyyiwul aj suuf bàyyiwul aj birik bàyyiwul aj beton lépp lu nit di liggéey rek boo ko woowee da koy liggéey olof Njaay rek nee na xandoor bu demee ci waar ba wàcc na kon bëggaa wàcc na ñun dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana. qualité wala yan jikko rek moo la gënoon marqué ci moom. bëggaa man am naa jabar mais maa ko magee 11 mois mais wallaahi azim su ma demee dem tëddi aw ma lu ma jox sama jabar yi su ma xëyee su ma su ma ñëwee fekkum toog ma ne ko bëggaa tey de aw ma lu ma joxe ndékki mu jox ma reer. ñun ñëpp ñun ñëpp mën nañ ko téeméer ku am ku am problème mu reer moo lay jëndal reer nga am problème mu kii mu jëndal la ndékki waaw boo ko am moom baax lañ ko xamee baax. billaahi wala. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax. waaw jërëjëf soxna si. Euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. bi naka la. sant alhamdulilah. bi naka la. Demba la. Demba lan nga bokk ak bokkaa mi fi bàyyeeku. bokkaa maa ngi bokk ak moom euh, Baye maa ngi bokk ak moom Baye muy sama doom Baye du ko xale bu yaru du ku baax wax dëgg yàlla liggéey nag la ko ñëpp xamee ndax bi mu faatoo ba léegi. man ñu wax ma ko mu yëg ma dafa ma ma yëg ko la moom dafa ma bett trop parce que dama ne loolu ba gaaw na trop jour boobu noonu ba ma fi ñëwee la ma ku ma mbëkkanteel muy mag ñi di ndaw ñi ku ma ku ma wax rek mënuma ah maa ngi lay sigi ndigaal ci métier ma dégg léegi léegi si ñu tàggee ma ko ma leen man ni leen ko tàggee noonu lañ ma ko tàggee mais ñoom ñëpp lañ ma seedal ne ku baax la ku nangoo liggéey la amul benn problème te amul liggéey boo ko jox mu liggéey ko wax dëgg yàlla borom baax la sama rax la même mosuma ko xamal dara lu bon dul liggéey liggéey daal la ko ñëpp xamee moom façon liggéey boo ko jox mu liggéey ko aj day aj suuf day aj béton day vider fos day liggéey maçon day dawal saret lépp daal lay def bàyyiwul benn liggéey waaw parce que li mu la ci mën a leeral ba mu mën koo leeral danga koy laaj ay xaritam ngi nii toog xaritam yi toog nii yàlla xam ne ni koo ci laaj dina li ma la wax ni la ciy wax parce que tamit ñoom ñëpp loolu lañ loolu lañ ko xamee borom baax la di alalam du ko boole kenn wax dëgg yàlla ay moom sama ay waajuram sama suñu papa moom bu làqu mais moom yaayam moo ngi fi waaw suñu papa moom làqu barki demb la barki démb barki démb ci jour quinze août bi ci la am ay vers 2 heures yooyu 2 heures ci bëccëg mais bi ma koy yëg man ñu ngi koy tàggee ay booru vingt heures sama kër Malika parce que man fi laa dëkkoon ci étage bi mais après dama wu dem Malika wax yàlla bi ma ko waxee nag affaire bi bett na ma trop dañ ma ko wax ma ne leen comme wax nañ ma ko sama grand frère moom ma ko yëgal ne ma mu ngi nii dalal jàmm ñu téye léegi da ngay toog ba suba nga ñëw ci suba sa laa ñëw ci suba sa ba ñu xëyee ñëw aussi dem nañ ba police ñu ne ñu dañ fay ut papier. pour ñu mun ko récupérer dara jàmm yóbbu ko CTO pour ñu defal ko autopsie waaw loolu démb ba yàlla def nañ loolu yëpp dox nañ ko ba yàlla def na ci jàmm ba démb ci ngoon lañuy soog a jot koor bi dem dañ ah xamaguma si nag boo xam ne waxaguñ ma ci dara xamaguma ci dara wax dëgg yàlla loolu laa ci am parce que ñoom ñoom ñoo demoon man fi laa nekk di recevoir gan yi gan yi fi ñëw parce que mag bu góor bi nga xamante ne mooy suñu taawu kër ma topp ci moom moo ne ma gannaaw ñun ñëpp mënuñoo dem yow da ngay toog fi nga recevoir gan yi ma waxee loolu sama waajur bu jigéen boo xamante ni sama bàjjen la sama magu papa ne ma ah gannaaw euh, sa taawu papa ndew fi moom moo nekk hôpital yow bul am leen looy def bul luwee baas bu def dara man ko waa baax na ci kaw loolu ci la ma ay xaritam bette indil ma indi indi fi ay baas ñetti baas yooyu ngay gis ay xaritam ma ko fi indi wàcc fi ay ceeb wàcc fi diwlin wax dëgg yàlla tawar fi kala ak ay mbuusu sachet ndox yi nii meew bàyyiwuñ dara café Touba lépp lañu indi ndax waaw moom mooy taw mère bi moom si non am na am na rax bu góor am na ñaari rax yu góor am ay rax yu jigéen am benn mag bu jigéen ñoom ñëpp ngi ci kër gi waaw. d'accord jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax. jërëjëf yàlla na yàlla nangu. kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. naka la. man Pape Sow lañ may wax. Pape Sow lan nga bokk ak bokka waaw Boka de sunu xarit la sunu nit la et ñoo bokkoon fi ñu doon nekk chaque jour. ginnaaw ba ñu la ko jaalee yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. waaw li ma leen mën a jox ci moom mooy nit ku nangoo liggéey la ku nangoo liggéey pour dimbali yaayam ak ay magam ak ay raxam da daan jël risque sax ngir liggéey pour am dara pour mën ko yóbbu seen kër waaw amaana ne liggéey sax ci la ko sunu borom dogalee mu mu faatu quoi. Euh, ñi ngi koy ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fii mu jógee ndax xam na ne jàmbaar la te dafa liggéey ba ba daanu gaañu foofu kon ñi ngi koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fii mu jóge nit hmm? bi muy am yéen jot ngeen ko fekkee wala. non man moom fekkeewu ko ndax euh, jour bi muy am ci avant jour boobu noonu ci matin boobu noonu lañ am lañ lañ gisee juste ko ñu amoon benn programme bu ñu waroon dem mu amoon fu ma waroon yóbbu. mi ngi ma koy rappelé naan ma jaas ñëwal ñu dem foofu xam nga ñëwal ñu dem foofu ma boole la ak sama paa boobu ci laa nañ ko waaw man maa ngi waajal nii xam naa ne semaine bi su ma may dara dinaa la woo ñu dem fa ci laa dem xëy bu ma wàccee ba ci suba sa gisewuñ bi ma xëyaatee ba ngoon gi ci laa wàcc ñu tàgge ma ko ñu ma ko tàggee nag jaaxle naa trop trop trop trop parce que man biñ gëjee gisee benn jour moo dox sama diggante ak lim ma doon wax naan ma waajalal ñu dem foofu noonu loolu moo ma gën a sogee jour boobu noonu ma daal di daw ñëw fii bi ma ñëwee ma xam ne nag affaire réelle la dëgg la jàpp na ma trop wax dëgg fa yàlla parce que nit ku baaxoon la nit ki nga xamante ni boo toogee moom du la wax lu dul lu la jariñ ak li nga xamante ni loolu moo lay avancé loo quoi. dem rek ba lijjanti leen tekkil am kër dugal ci yaayam ak papaam ak ay magam parce que loolu rek moo doonoon rêve am bëggul dara foo ko fekk te ni lay sol man loolu moo doon li nga xamante ni daf ma soge ci moom quoi parce que mosuma ko gis mu sol nii sax xam yére bi nga xamante ni du tëni tëni rek lay sol foo ko woo liggéey dafay dem day jóge liggéey léegi léegi ñëw toog nit woowaat ko téléphone ne ko bu ko am naa lii mu daw dem liggéey loolu ngir bëgg rek xam nga man wax nag laa mënul quoi mais ñi ngi koy ñaanal fu mu jëm daal gën ko fii mu jógee. jërëjëf yàlla na woyof si kawam barki sëñ Fall. Ah, bi maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay. la. maa ngi tudd Malick. Malick lan nga ci bokkaam nga bàyyee ko. sama lépp la sama mag la sama xarit la man ak moom ñooy ànd guddeeg bëccëg fu ma nekk daf may woo laaj ma foo nekk. ba ni muy wàccee journée bi yëpp ñun ñoo ànd man ak moom ba mu ne maay ñëw boobu gisaatuma ko après si lañ ma woo ne ma daa daanu. gannaaw ba ñu la ko jaalee yan kàddu sedd rek nga ñu mën a jox ci moom. xam naa ne moom ni ko baax la ni ko baax la ndax wax dëgg yàlla day ànd ak man man damay liggéey moom muy liggéey mais du xool lu ma lu ma yor barke Serigne Touba des fois man maay jékki jéeki sax di def xoolul nit yor billaahi lu mu yor si nit ñi lay des. billaahi. d'accord ndax bi mbir yi di am fekk na la foofu wala. non fekkuma fa boobu dafa fekk may liggéey mais bañ ma ko waxee gëmuma ko sax kii nii moo ma ko wax mais ba ma ko waxee gëmuma ko billaahi après si lañ ma woowaat wax ma ko. ñu la ko jot nga dem ci hôpital bi pour gis ko wala. non dalal jàmm moom pour nga gis nit moom problème la foofu moom boo feebaree sax boo fa duggee balaa ngaa génn sax problème la waaw. Mhm. ànd doon ànd ak nit comme ni nga ko waxee jour bi nga xamante ni ci lay gaañu yéen ñaar yéen a bi muy daanu nag fekkul la fa tey ngeen tàqalikoo lan rek nga def ci yow. waaw non dëgg yàlla man su ma demee bay liggéey sax moom la parce que Serigne Touba moo ma xam loo liggéey quoi billaahi lépp loo xamante ni da koy day ñëw boole ma moom dama am liggéeyal ko am na nit ñu bëri tey jii bu ma leen xamee sax moom moo tax. billaahi wallaahi waaw ni ku baax la billaahi non moom soxna si sama xol dafa tooy ko waaw billaahi billaahi wallaahi wa taalaahi billaahi instant damay jéngu di wax nii sax mais mooy loolu quoi billaahi borom baax la ku baax bett na ma quoi bett na ma moom dëgg yàlla. moom dafa ma bett ndax ba mu ne maa ñëw ba gisaatuma ko billaahi maa moom ñoo ànd ba dañ koy woowee pour mu liggéey mu wàcc kii toog nii moo ko woo billaahi mu ne ma maa ñëw barke Serigne Touba boobu ba léegi gisaatuma ko si la ma général mi woowee na ma sa waay wàcc na ma ne ko waa li ngay wax après si laa ñëwee fii da ko gëm waaw jot nañ si démb waaw waaw dem naa ba hôpital xool ko gis ko si laa doog a gëm sax affaire yi am na. bi nga nga ko gisee rek sa xarit boobu. non mu fekkee tamit nekkul moom kese sax ay nit i nit laa fa fekk yoo xamante nii tamit comme ñun rek ñu toog di xaar koor billaahi fekk fa ay doomu aadama yoo xamante nii ñun ak ñoom a bokk rek billaahi jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. waaw tamit yow tamit waaw jërë ngeen jëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare ni lañ leen ko waxee woon tey jii ni ngeen ko doon gisee ñu ngi woon file ah, ci géejawaay ci tiis bu métti bi nga xam ne moo dal ci seen doom ji ñuy woowee Bokar ah, am fanweeri at ak benn moom moo daal di ah, jóge si troisième étage rek daal di ñàkk bakkanam li ko sabab nag dafa doon liggéey adouas bi nga xam ne moo nekkoon foofu ci la affaire bi surux ak moom rek mu daal di dal ci suuf foofu la jaaree ñàkk bakkanam mu nekk nit ko lu xam ne lu tiis la ginnaaw bañ ci kër gi nga xam ne foofu la doon liggéey ñu ñëwaat da koy nag ñëwaat ci kër gi nga xamante ni fi la dëkk jël nañ ay xaritam jël nañu ki nga xamante ni moo di yaayam ak ay ñaaleem ñu joxe ay témoignage yu am solo ci seen doom jooju ñu ngi koy ñaanal ñun waa wasaare yal na ko yàlla yërëm xare ko aljanna firdawsi fa mu jëm gënal ko fi mu jógee jàmbaar rek rek bu wàccee bu daanoo ci li nga xamante ni moo ci liggéeyam yaakaar naa ne si xare la den ci ci ci daan dooleem la ñàkkee bakkanam ci bëgg a ay waajuram la ñàkkee bakkanam yàlla yërëm bu baax a baax euh, xare ko aljana xale sama doom ji merci beaucoup merci beaucoup mbokk internet yi nga xam ne yéenay safoo di seetaan site bi di wasaare di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah ak yeneen actualité ak système beneen taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag